murshida o fikrati nawir waxal bi alshira barke borom Tuba barke Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi safoo di seetaan teen télévision Touba TV ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar bu baax a baax tey nag ñu ñëwoon fii ci Malika ñëw seet yoon sunu baay Alioune Diop xidma ñëpp xam ko ci ahlu xasida ku déggut turam xam nga ko bu baax a baax mu nekk koo xam ne kenn la ci ëxlu xasida tey ñu ñoon siyaar si ko ngir mu am ay dénkaane yum ñu defal ci waajtaayu bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal di màggalu xasida yi nekk la premier décembre incha allah ñu koy waajal bu baax ginnaaw nu beeg siyaar bi kon dañuy jox suñu bàyyi mu nuyoo su ko defee ñu mën a door waxtaan wi incha allah aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaam ala ashraf al anbiyaai wal barkeb Cheikhul Xadim mbokki murid yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara waaye di leen dokkeel ci weer wu màgg wu tedd wi ñu nekk nga xam ni mooy weeru sallallahu alayhi wa sallam waaye mooy weeru Cheikhul Xadim sunu yaakaar di leen ci ndokkeel bu baax a baax a baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh mun Muntaxa bi nga xam ni moo yor baatu yoon wi di xaadimu rasul ci kaw suuf di ñaan suñu borom dolli ko wér dolli ko kattan dolli mu yéene ci liggéeyal sëriñ bi lépp mu def ko ni mu ko bëggee te nu ànd kook moom ci barke Cheikhul Xadim di ziare njabootu sëriñ Tuubaa yépp di ziare itam cheikhi sëriñ Tuubaa yépp tàmbalee ci buntu kër Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina bikki sëriñ bi mujj gërëm ci njaboot gi waaye di beral nuyoo ak siyaar suñu jëriñ sëriñ Amsatu Mbakke mom Serigne chaib mi nga xamne ne ci pastéefam ak ci yitteem ak ci dogom jëm ci serigne bi ci la tawfiq ju mag ji exé muy magalu khasside yi ñuy wajal kon ñu ngi koy nuyu bu baax te diko ziaré te ñaan suñu borom suñu borom degeural ko te sam ko te ar ko wala bi yene yéene serigne sëriñ and ko ak murid yi suñu borom defal ko ko nim ko bëgge ci barkeb khasside yi alaykum salaam wa rahmatullah jërëjëf bay Alioune ñi santat bu baax baax ci kaddu yi di santaat bu baax am na solo lool kon xam naa dañuy jàll ci laaj bu njëkk bi mu mu nekk ci ëxlu xidma mooy daayira bi nga xam ne moom ngeen jiite muy xidma xidma ñu bëggoon a xam doot e, njëlbeen bi ak création bi loon ci mën a àndil waa moom de day mbir mu xam ne càllal gi dafa yàgg mm-hmm. ndax e, kuréelu mu xaadimaatul xidma Eh, day kuréel goo xam ne dañ koo sos ci ndigal ndax ñi nga xam ne ñoo sos kuréel gi dañ doon ñenn ñoo xam ne dañoo bokkoon nekk ci kër soxna su gaawaan bintu Cheikh Al Xadim soxna su gaawaan jàpp naa ne yoonu murid gépp xam nañ ko ndax moom mooy taawoo xaadimu rasul moy ki serigne touba njëkk gis ginaaw bi mu bàyyi ko ci geej gi dëgg la soxna faati Mbakke ja ñu koy soxna fat ja moy taawu serigne bi waye koku moy taawu Cheikh Ahmadou Bamba waye taawu khadim rasoul mom moy suñu yaakaar moy soxna su ndax xam ngeen ne serigne bi euh ci Daaru Xuddoos la sàkkoo doon xadimu rasul ñu teg ko liggéey boobu mu nangu ko engagé wu jëm ci liggéey bi waxal boppam ne allamani rahmaanu fi safina bi ànd nii xadimu sil madina kon foofu la toone xadimu rasul dem liggéey liggéey ba eh, liggéey ba sotti mel ni ko suñ borom bëgge woon suñ borom gërëm ko yéen sala gërëm ko mu dellusiwaat ki mu njëkk gis gana ngirim lolu mo soxna su bint bintu rasul soxna su datang nak da nga xejju seigne touba don ko seigne touba beug ko seigne touba fonk ko seigne touba baye xel eh, ba soxna aminte amar waxna ni bi ñu de mbolém xaside yi sëriñ bi binde ndiarém te don ko sorti lo ma masamba xaside gune balako jox sëriñ masamba day wo soxna jox ko ko ci mbindam soxna su Gaawaan jàng ko ba mokkal xasida ga mu soog a woo sëñ Masamba jox ko ko sëñ Masamba soog koo sotti kon euh, li may déggee ci loolu mooy sëriñ bi da dénk soxna Astu Gaawaan liggéeyub xasida yi te soxna Astu Gaawaan moom wax nañu ci làmmiñ boppam ne sëriñ bi moom wane ma ay surtout ma ne ko Mbàkke mu ne ma sama liggéeyub xasida yi dénk naa la ko mu ne liggéey boobu nag bi ma ko sëriñ Tuubaa dénkee ñi ma bokkal sëriñ bi di sama samay rakk yi ma bokkal sëriñ bi ak sama waajur yi nga xam ne ñi ngi ci wànnagu sëriñ bi ci ma maaseeg ñoom ñooñu laa àndaloon liggéey bi soxna Amin Tamar moom mu ci la bokkoon ndax mooy waajuru sëriñ Masamba sëriñ euh, Moustapha Masamba euh, ku ne xam na ne euh, sëriñ Saliou waajuram soxna Faat Jaxate ci daayira boobu la bokkoon ku mënoon a jàng xasida la ku amoon ak mokkal la ku neexoon baat la ku mënoon daaj la sëriñ Saliou daana wax ne xasida ak nii mokkal naa ko ca daruma alxuraan ndax eh, boobu jamono taxoo gi muy taxoo soxna si léeg mu dem ci ginnaawam léeg-léeg mu ne ci kanamam fu soxna si jëm di ko yóbbaale ci soxna si buy liggéey ik fi ne lay yëkkati Serigne Saliou nee na ci laa ko mokkale ci boobu sax daragul alxuraan waaye loolu day firndeel ne soxna si kon ku takkoo woon ak xasida yi la ñoom ñu ma tudd nag mën nañ koy lim kenn par kenn soxna si gawar ma doon seen jëwriñ ci dénk gi ko sëriñ bi dénk liggéeyam xasida yi Euh, soxna si di saytu liggéey boobu yi ànd ko bokkam yooyu ba yàlla dogal ñu jëm ak mag tasaaroo gannaaw bi fi sëriñ bàyyi ko sëriñ Fallu dajalewaat njabootu sëriñ Tuubaa gi Tuubaa mu dëkk ci gannaaw ay nu raxmati euh, nee na diir boobu bépp nag liggéey boobu gannaaw ñi ma ci doon wéttali gisatuma leen man liggéey bi dama ko saytul sama bopp ndax kenn doy ci di jàng xasida yi di ko warmaal di ko bindulu di neexal ñu koy jàng ak ñu koy bind ngir sam ndénkaaneel sëñ Tuubaa lolu ba yalla dogale ñun ñi nak yalla taw ñu ba teg ñu ci loxol sama su gaawaan ñu ne ci kër ga nak te yalla xir ñu ci xasside yi ñu di ci liggey liggey bu rafet soxna ci def na yeen lama ngir liggey bi moko bimu ma denkon ngeen man ma ci wettali def na len ci ngeen di sama wettal tan ni waxuma len yeen ñi and ak man ci liggey bi waye ku len yéen jamm sax dootu ko ñàkk euh, liggey bobu nak ñu yoral soxna su gawaan Euh, yu yaatu la liggéey nañ ci ay liggéey yu bëree bëri ndax am na liggéey bu mu waxoon ne da ko bëgg a liggéeyal Serigne Touba bu ko kenn musta liggéeyal ma fas yéene ko liggéeyal Serigne Touba ànd ko yéen loolu mooy lan mooy dama bëgg ñu jàngal Serigne Touba xasida ak sindiidi ñaar fukki junni ak juróom-ñett mooy arafi Touba nga xam ne dañoo yónni njaareem ñu wut fa suuf indil ko ko mu séddale ko ci ñaar fukki musaar ak juróom-ñett ne nañ seet murit yu pasteefu murit bu nañu jox la musuwaar nga jàng junni sindi diw yu sell keroog bañ ko indee da koo téye ñaar loxoom yëkkati ko ca kaw daal ne lii maa ko jëkk defal sëñ Tuubaa xaar leen ma dem jox ko borom bi mu ko jébalee sëriñ bi ba dellu siwaat dafa ne liggéey bii may jébalal sëñ Tuubaa ci ngeen defal ma ko xam nga lu leen ci sëriñ bi fàggu la ñu ko bëgg nañ koo xam mu ne taalibi ko sëriñ Tuubaa nangu sànge ko ba dara mënatu ko yàq am ngeen ko ci liggéey bii liggéey boobu nag biñ ci àndeek soxna si ba soxna si dellu ci boromam Euh, ñu nit ñi ci ëpp dañoo tasaaroo woon hmm. ndax sëriñ Abdoulaye dafa tëj lu woon kër ga bàyyi fa sëriñ Daam Saar hmm. waaye ñenn ñu ci ne fa ñu nekk ña nga ci xaside yi ba ñu xalaat ne nag dañoo war a daje di dundal ndigalal sans su gaaw loolu ci lañ daje nag sos daayira mu xaddamaatul xidma euh, loolu nag ci nekk sëriñ Saliou la biñ ko sosee ñu ne gannaaw sos nañ ko nag li gën mooy nañ ko tabax togg ko ba mu ñor ñu soo ko yàkkal sëriñ bi mooy ñu dem laaji ndigal rek ñëw tàmbali ndax xawuñu dana wéy wala déet nañ ci dox ba mu wóor ne loolu taxaw ñu dox ci ab diir lu tolloog fukki weer ak ñaar waaye saa bu ñu dajee nag amul lim dañuy jàng rek léegi la jàng téeméeri xidma ak fukk ak ñeent léegi la ñuy jàng juróom-benn fukk ak juróom-benn daal yu mel noonu ba yàlla dogal bi ñu demee ci Sëriñ Saliou nag ma leeral ko pas-pas bi ak li ko waral ak lepp ba wax ko muxaddimatul khitma yi ak limiñ ci kita jàng bi dafa jël kala gi taf ko ci gemiñ gi sering na lolou di ëpp na muxaddimatul xidma benn bi sax ëpp na moo tax bi diglé won ñu def ko ay xaj waye soxna su dimbal ñu ñu salou ñaar rek mo ñu fi indi moy sa digël ak sa dimbal ndax ko dimbalé loko ko digal dina ko man té am nañu yéena liggéey liggéeyal sëriñ ci téré bi ñuy sakku nga dimbalé ñu té digël ñu mu ne kon nag am ngeen ci ndigal di ngeen ci taseeg ndimbalal sëriñ bi waaye nag bu leen ci weesooti kon ñaar fukk ak juróom-ñett nga xam ne lim yu mag yi ci daan def dañ koo bàyyi yem ci ñaar fukk ak juróom-ñett yu ñu sëriñ Saliou sant muy ndigalal Soxna gaawaan la kon moo wéy di Muxaddamatul Xidma ñu ànd ak sëriñ Saliou ci liggéey boobu ay at yu yàgg ba yàlla dogal at moo xam ne dañoo war a dellu ci sëriñ Saliou niñ ko daan defee. ba ñu ba ñu jàppee bis bi ba war caa dem Serigne Saliou dafa yëgal Serigne Amsatu Mbàkke ne ko bëgg naa nga ñëw teewe si seen liggéey boobu yi sëriñ am Amsatu ñëw ànd ak ñun ci liggéey boobee ba liggéey ba sotti ñu fasanteeg moom wëlëre laata liggéey baa dellu si sëriñ Serigne Saliou dellu na ci boromam bi Serigne Saliou dellu ci boromam ñu dem ci Cheikh Amadou Lamine nag ziyaare ji ko jàpp ne kon dañoo war a dem ci Serigne Amsatu mi ñu Serigne Saliou boole woon nag fedd lu ko rëgoogee ñu jox ko daayira Muxaddamatul Xidma Euh, keroog kër sëñ Xabbaan Mbàkke la ñu yendu moom sëriñ Fallu liggéey fa liggéey bi eh, ba ñu noppee la ma woo ne ma seen teraanga ëpp na lii ma leen defal am naa gileem goo xam ne ma nga ndindi def naa ko àddee sëriñ Tuubaa mooy seen teraanga gileem googu ci guddi gi laa yónnee ñu jëli ko yóbbul ko sëriñ Amsatu Mbàkke joxal ko ko àddee gileem la njëkk def ci bisu magalu xasida xam ne eh, sëriñ Xabbaan Mbàkke moom sëriñ Fallu moo ko ci def ci sëriñ Fallu ku ne xam ne dayam ci sëriñ Tuubaa eh, kon màggalu xasida yi foofu la cosaanoo ci ndigalal Sëriñ Tuubaa lim joxoon soxna Sugaawaan soxna Sugaawaan ànd kook ñun ba ñu sos ci Muxaddamatul Xidma di ko ànd ak Sëriñ Saaliwu kon day mel ne Sëriñ Saaliwu moo xam ne day dellu mu teg ñu ci ay loxoom muy loxoy Sëriñ Amsatu Mbakke nga xam ne Sëriñ Amsatu moom kenn jax boolewuñu ñoo moom ku dul Sëriñ Tuubaa muy Sëriñ Saaliwu eh, liggéey bi mu agsee ci moom it nag ni mu ko téyee ak fi mu ko yóbbu ak doxee ni muy dox moo lay xam ne xam na fi mu jëm xam na li mu nekk te it xam na liñ ko dénk kon euh, su ma bëggul daal maanaam lii mooy cosaanul muxaddamatul xidma lii mooy tàmbali màggalu xasida yi aleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf euh, laaj bi moo nekk ñu bëggoon a xam diggante ahlu xasida ak xidma ba xam benn la wala am naa ko ute waaw moom de xam nga day mel ne euh, ahlu xasida mooy muxaddamaatul xidma muxaddamaatul xidma mooy ahlu xasida ndax sëriñ bi moom du juum euh, te maam Cheikh def na woon waxtu na yàlla kenn lay wuyu ku bëgg yàlla wuyooti la wuyul wuj damal wuy kooka gannaaw sëriñ bi soxna su gaawaan la dénk liggéey bi soxna su gaawaan nit yàlla dogal ci taw feexam mu jiital ñu ci liggéey boobu ñu daa ko saytu euh, bi ñu sosee Muxaddamatul Xidmaat ñu jiital moom ma yor liggéey boobu di ko doxal lu xasida gépp dañoo maase ci jàpp ne doy naa leen jëwriñ donte li matuma ko ba fa ku bokk ci ahlu xasida nekk ku ne e, nangu nga ne sëriñ Alioune Diop mooy sama jëwriñ te e, ëpp ma Pastef ëpp ma yitte dàq ma dul xasida yi gën ma koo sellale waaye loolu yëpp xooluñu ko maanaam nangu nañ cër boobu jox ma ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa may matuma ko xaa xanjalewuma ko waaye dama leen koo nangul ngir war warmaale leen ko fas yéene ànd ak ñoom ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi kon muxaddamaatul xidma mooy mboolem ahlu xasida maanaam képp kuy jublu penku di ubbi xasida di ca sàkku barke ngir jege sëñ Tuubaa rek jàpp naa ne yaa ngi ci biir muxaddamaatul xidma léegi nag gox yi xaw a fasanti ko moo waral gox bu ne am ñu fa nekk am aw tur am mbooloo amu tëralin waaye bu ñu dajee rek mel ni mbooloo la firnde ji mooy bu ñu tasee màggalu xasida yi doo xàmmee mbooloo sàngam mbooloo sàngam ahlu xasida ñoo teew daaw dégg ngeen sëriñ tax Bachir dafa wax ne njabootu xasida yi kenn génn ca kon day mel ne muxaddamaatul xidma benn kuréel la ci biir kuréelu ahlu xasida waaye mën naa représenté mboolem ahlu xasida ci ci seen mbooloo fuñ mën a toll ci biir réew ak bitim réew kenn génn ci ñëpp ngi ci biir muxaddamaatul xidma muxaddamaatul xidma mi ngi ci biir mboolem ahlu xasida noonu la seen diggante demee. ba tey ñu bëggoon a xam gis nañ ne bisu xasida màggalu xasida yi moo nekk. bis bi nga xamne mo mujj ci bisu xasi tay waye gis nañ ne mo upp mbolo ñu bëggoon xam ba xam wa xidma ñokoy saytu wala ñam ñokoy yor taxaway beeg yoy waaw bisu màggalu xasida yi manam du du yor tur bu yam ak yeneen yi ci dess yi ci dess yep ay bisu xasida la yoo xamne ñen ci waa ahlu xasida ñoo ci gox sangam di fa def waaye ñooñu nak di taxawal bisu khasside yi ñom ñëpp ñoy andando ben bés dajé ci ëttu serigne touba bi muy barab ba ñuy tudde jaalibatal maraaxib ci kilifteefu sëriñ Amsatu mbacké bu ñëpp dajee nag ñooñu ñoo taxaw ngir màggal khasside yi nga xamné moy bis bi gëna reuy ci nun ahlu xasida nga xamné ni nga ko waxee bis yépp dañuy yek di yek di yek ba ag ca njobbaxtan la nak moy magul xasida yi nga xamne buñ ko defé bo nopi dañuy tasaraw tasawawat nak di defaat ay bisi xasida di defaat ay bisi xasida bu ñepp matale ñu dajale dajewaat ñun ñepp magalat xasida yi ngir lan xasida yi day du mag yalla magal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam magal ko xasida yi magal señ tuba ndax señ tuba fu mu tollu ci borom xasida yi ñoko fa tek señ tuba ku mu raw xasida yi tax mu raw la lu am xasida yi tax mu am ko te it nun ñii li ñu sëñ Tuubaa fàggul lépp mu ngi ci biir xasida yi kon xasida yi dëgg-dëgg mooy maanaam muy mbirum sëñ bi euh, sëñ Mor soxna sëñ Mor moom soxna May Kubra daana wax ne xasida yi mooy baatinu sëriñ bi euh, euh, loolu nag mooy màggalu xasida yi taxawaayu màggalu xasida yi nag maanaam ci ci ci yenn mbagg rek la tegu mooy mbagg sëriñ Amsatu Mbakke moom moo yor lépp kenen ku dul mom nak yoru ci dara ludul lum la denk rek nga saytul ko lola moom it tegu ko ci mbag ken ludul mbag serigne touba Tuubaa yi su ko defee kon ahlu xasida yépp ño bok di taxaw bis bi ña ko gën a jege nag te féete foofa ñoom di waxtaan di noso ko nocci ci turu ñëpp bu accès rek ñu àndandoo liggéey bi mu dox xana liñ ci war dal moy ahlu xasida di gën a jëgaat seen bop ci bis boobu di wajal waajal wo woo ne suñ ca yagate kenn ku ne ci ñun dang ca feeñ feeñin wo xam ne kenn dootu ko nattable ndax kenn ku ci ñun bis ba ngay def ca gox ba nga ne lañ ca wara def lepp ya koy defal sa bop yak sa mbolo kon bis biñu bolo, nak nag parce que santal xasida yi kenn ku ci ne war nga ca indi sa mbiram bop mo xamne suñ dajalee rek mu mat liñ soxla ndax Sëriñ Tuubaa moom day ku mat koo xam ne eh, mos na jëggaani dara gis ngeen gàmmu gi ni ko jullit yi fonke ak fi ñu ko teg ngir yontu sa salaam waaye li ëpp ci jullit yi bu ñuy gàmmu dañuy seeti mbindam keneen ngir gàmmoo ko sëriñ bi nag danoo bañal loolu ba lépp lu ñu war a gàmmoo bindal nañu ko diine ji ñu nekk di diine islaam nga xam ne dañ ko war a xam te di ko jëfe mboolem liñ ci war a xam sëriñ bi daa warlu bindal ñu téere yu ñu ko war a jànge kon sëriñ Tuubaa moom dafay ku am jom koo xam ne bëggul ak njabootam dara kon ahlu xasida tamit bisu xasida bi di màggalu xasida yi li ci war li jaadu mooy kenn ku bokkul suñu waru cee def dara bala moo agsi war naa fekk nun ñu matal lépp ba sotti ku agsi ñun ñun la jëf ndax liñ aayoo woon lépp mat na te loolu mën naa nekk ite rek la ak booloo yàlla nañ sëñ Tuubaa gën a boole bañ mën cee egg ci war ci xasida yi ba tey Baye Alioune ñu bëggoon a xam ana ban dénkaane nga mën a jox waa ëxlu xasida ndax yan saa dañuy dégg ñuy faral di leen dingat ci mbedd bi di wax naan ñoom liggéeyuñu wala fonk ñu jàng meek yu mel noonu ana ban soñña nga ci mën a àndil loolu de maana mooy ni ma ko waxee léegi rek maanaam bi dem kër sañu am satu daayira daayira xitma lañ ko may ndax dañoo baaxoo ku bokk ci daayira xitma weer wu ne kenn day aaye ñu dem këram yendu fa jàng fa ñaar fukki muxaddamatul xidma ak juróom-ñett ñaar fukki nooru daal juróom-ñett jaalibatu taysiir mafatihil bichri adayaqut fadaili jës bu mooy muxaddimaat téere xasida yu bari ci diggalal sëriñ Saliou Wolo suñ ci noppee nag bala ñu julli tàkkusaan ñu séddale fulki bi jàng fulki bi julli tàkkusaan yeewee ko loolu la ñu baaxoo def daayira boobu lañ daan defal sëriñ Saliou at mu ne ba mu woo ca am sa fekke ko ca déwén sa nag bi fi sëriñ Saliou jógee ñu jox ko sëriñ Amsa dem def fa daayira bu mel noonu bañ fa defee daayira bu mel noonu nag bañ fa jógee ca déwén sa sëriñ Amsa di laaj ba xam ndax waxtu wañ ko doon def jàpp nañ ko am déet fuñ ci toll ñu jàppaat waxtu woo ne ko waxtu sàngam danañ fa ñëw waxtu sàngam bañ eggee nag sëriñ am sa da ko yëgal mbooleem ay wëllëreem ñu fu ne ab mbooloo jóge fa ñu daje fa ca biir waxtaan woowee nag ba ñu nopp li dëppee ci liggéey ci biir waxtaan woowee fa la yëg-yëgu màggalu xasida yi ñëwee ñu wax ne bis bii kat bañ koy waaj daaw ba ren ñi nga naan bisu sëñ am saak bisu xasida euh, tubaabaak ñu bëgg xam le ne tey bis bii ku am doom ku ne sañ ngaa ne nangam laa ko tuddee gannaaw noo ko sos nag indi ko fii dañoo bëgg a yëgal ahlu xasida de bis bii nañ ko tuddee mooy dañuy barkeelu ci ne sëriñ tudde won bisam bi di magal gi ndax duñ koy wax wat loolu ñu ko wax sëriñ bi def ne buma ma ko déggati dama bëgg ngeen di ko ak magal kon nak ñoo ngi barkeelu ci bisam bobé wax ne bis bi tay tudd nañ ko magalu khasside yi keroog la tuddu magalu khasside yi légui nak ahlu khasside gep bokku ko at mu jot ñu ne bis sangam la magalu khasside yi buñ fa dajé di magal khasside yi eh, ngir di ko ci magal gi ko yalla magal yonent bi magal ko sëriñ bi magal ko loolu moy laaj bi sëñ Mouhamad lan laaj léegi

ba lenn loo xam ne maanaam moom dana ca addu baa mu mooy dañoo jox lépp rek te bàyyi noog lépp te téyewaatal nu lépp maanaam bisu xaside yi ngay dégg ci réew mi yépp ba ca bitim réew maanaam sëriñ njirim Aaw mi ñëpp xam ak sëriñ Abdul Karim Njaay mi ñëpp xam ñu bokk ci daayira xidma sëriñ Yirim Aaw di yéete di jiite kuréel bu ñuy wax Kanzul Muhtadina fii ci Dakaaru sëriñ Abdul Karim Njaay di jiite kuréel bu ñuy wax Matlabul fawzin fele ci tiwawon ñom ñaar ñoy saytu mbollem bi ci khasside yi di ci jokkoo kurel yi nga xamne ne taxaw bi ci khasside yep nga xamne ne kenn ku ci ne day déggoog ñom ñu seet dat bu baax ci wax ci barab bobu ñu ne euh, barab sangam bi sangam lañ ko jappal barab sangam bis lañ ko bis sangam lañ ko jappal ba mu jeex amna ci yo xamne ne du taxu yoyé la jëk njëkk soko tassaré ci dess masalan lu melni ne bur bi yow mu aswara rek lay doon kon nañ koy bàyyee mbuur nga xam ne benn bisu xasida du ànd ak du ko du taseeg moom dañ koy fexe ba benn du ci taseeg moom su ko defee ñëpp daje mbuur suñ fa jógee nag te gannaaw suba bu amee feneen bis ñu fekk jox nañ ko ñooña suñ fa xëyee dem fee ndax seen la daa waxoon ne liggéey bu jeex rek ñu tàmbali beneen ndax fi mu ne fa ñu jëm egguñu fa fa ñu jëm mooy bisu xasida bu ñu noppi rek bu subaa ñu jàll ci beneen bisu xasida ndax sëriñ bi mate na ko xasida yi mate na ko te it moo ko diggoon ak yonent bi sallallahu moom moo digee yonent sallallahu alaihi wasallam ne ko waruna at mu ne ma tagla waye dem na ba at mi sori ci mom muy def wer wu ne ma tagg ko gis nga wer wu ne serigne bi sadd na ci ak khasside tuddi ko wer wo waye muy dem ba lolu xat ci mom muy def ay bis jëne mu tagg ko muy dem ba lolu manam mel da sori ci mom serigne bi diko bis bu ne mu dem ba bis bi xawa sori ci mom mu diko ci suba yi beccegi diko tagg ci ngoni lil Mustafa wajhatu joxtu yawmi xiddama am daayin ajala law ni ilaa nabi wa joxtu kulla leeli xiddama am daayin ajala neeli nga xam ne maanaam bëccëg yi am na ab liggéey bu mu war a liggéey yonent bi waaye guddi yi am na liggéey bu mu war a liggéey yonent salaam te liggéey yooyu yëpp mi ngi ci suñu mbagg yi nun ahlu xasida ndax moom daa diggoon ak yonent salaam ne ko liggéey bi du dog antal karimu anal xadimu daaran uddimi fekka sanaay liggéey bi du dog te sëriñ bi vingt 27 la gëj bind ak xasida waaye 27 ba tey dogut ndax ahlu xasida ñu ngi koy jóor yonent bi ci guddi yi ak ci bëccëg yi ci suba yi ak ci ngoon yi ca mooy bor bi sa bi sallallahu alayhi wasallam diggoon ak sëñ Tuubaa kon loolu mooy bisu xaside yi sëñ Mouhamed jërëjëf mhm. xam naa laaj nga benn laaj bu am solo ci ngay wax ne dañuy wax ne ah lu xaside duñu liggéey dañuy def nii dañuy def ne waaye lan mooy liggéey su fekkee ne ahlu xasida liggéeyuñu dañoo topp xasida yi loolu xas bi bu mu ñu naqari ndax wul ci nit nañ ko yéggal ba ci sëriñ bi nañ ma wax fan la sëriñ bi amon ay tool di bay nañ ma wax fan la sëriñ bi amon ay magasin di jaay nañ ma wax sëriñ bi fan la doon tukkee ko ñoo di defi commerce sëriñ bi benn liggéey la amon moy liggéey yonent bi salam. salaam ci lan ci diko tag tagg ak di julli ci mom mo doon ab liggéeyam bo démé ci euh wala xad karam naa da ko fekk lolu mu ne wet mu wax ne ci eh, lima lima lima ma def khadim rasul limay liggeel yon leen saa wasallam moy diko tag ak du julli ci mom mm, ci ci ci ci taggin yu rafet te jub lolu moy sama liggey seigne touba ab liggeyam gennul won julli ci ak tagg yoon saa salaam moo doon liggéey sëñ Tuubaa ahlu gennu ñu lolu kon ñi ngi liggey bi gëna a ci liggey waaw ku liggéey nag ñu fay la ki ñu liggéeyal moom mi ngi leen di fay te ku xool seenu doxin xool seenu dundin xam ne ñu ngi leen di fay waaw ndax liggaay yi sonn di ko am ñoom dañuy noppalu di ko am alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na gën a barkeel euh, waaw kon ci sëriñ bi ak sëriñ bi de xasida yi mooy li ma waxoon léegi rek hmm. euh, fi ne Eh, yonent yi yonent alayhimu salaam xam nañ seen daraja ñu ngi yem ci ak yonent hmm? eh, eh, saxaaba yi seen daraja xam nañ ko mu ngi yem ci doon saaba saaba yonent yi ah xutbu zamaan yi seen daraja ci xutbu zamaan la yem xutbu laqtaab yi seen daraja ci xutbu laqtaab la yem noonu la daraja yi dal ñu ci ne dañoo am seeni daraja foofu la foofu la ñu ku ci jóge fii dem fee sëriñ bi nag eh, li tax mu raw ñëpp fi mu ko jële mooy ci xasida yi ndax ci sëriñ bi ci xasida yi la jële moom am di jóg di yëkkatiku ca du taxaw te mën naa nekk ndekete ndax yàlla amul fu mu yem fii yonent yi fi mu leen yemale foofu daa neex yàlla waaye su neexoon su neexoon yàlla yonent yi weesu ay yonent doon leneen waaye nag da koo neex ñu yem ci la ay yonent kii di ñii gën ñii ñii gën ñii ñii gën ñii ndax xam ngeen ne téeméer junni la ak fukk ak ñeent mu tànn ca ñetti téeméeri ak fukk ñett ñoo gën mu tànnaat ca ñaar fukk ak juróom ñoo gën ñu alxuraan tudd mu tànnaat ca juróom ñu gën mu tànnaat ci kenn mu gën muy alayhi salaatu wasalaam waaye ñoo ñooñu foofu lañ yem sëriñ bi nag ci xasida yi la jàpp ba darajaam di yëkkati ko moom ci dootu am limite nga xam ne sëriñ bi foo na fa toll ba yëg na fa la toll boo koy bëgg wax fekk sëriñ bi weesu na ko daraja tii temps la wala sa tan xafit daraja am day yëkkati ko rek di jóg fi mu ne ku ne sëñ Tuubaa barab sàngam la toll rek wax nga lu dul dëgg def nga bàkkaar ndax waxtu yi ngay daaneel sa kàddu sëriñ bi romb na ko bu yàgg ndax moom day yëkkati ko rek jëm ci boromam lan moo yëkkati sëriñ bi xasida yi xasida yoo ko yëkkati wax na ne sama xalima yi ñoo may ñoo may yëkkati boole ma ca jundulaayil xaalibuun ñi nga xam ne ñoo sës ci yàlla gën a màgg ñu dul ñoom xaside yi xaside yi ñoo yëkkati sëriñ bi boole ko ca xaside yi moom la sëriñ bi yëkkati ci la sëriñ bi jàll jaaral ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ëllëgee day yëkkati sëriñ Tuubaa di ko xëlantoo mbokk mbokk yonent mi di leen wax ne li ngeen di baax ak li ngeen tedd tedd tedd tedd xool leen kii fi mu toll ak ni mu mel yonent yëpp di ko toqamtiku du ko ñee lan moo may loolu sëriñ bi xaside yi kon diggante sëriñ Tuubaa ak xaside yi daa nañ mooy jumtuwaay bi nga xam ne moom lañ ko fagguloon ngir moom bu ci ñëwee man cee jaar rawgaay yi ndax fi mu ne xasida du lu sëriñ bi taalif nii du taalif toxal la xasida yi sëriñ bi taalifu ko du ko toxal xasida yi ak alxuraan ñu bokk fu ñu bàyyi ko ca la ul maxfuus la jóge alxuraan nag ñu indi ko teg ko ci yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullit yëpp bokk ko xasida di cërub kenn képp muy serigne touba ñu dencal ko bum ñew ñu wacc ko tek ko ci loxom nga xamne serigne bi day toxale ci lawul mahfuz di sot ci ay kayitam serigne bi sañon na bu noppé ci xasside yi denkat ko boromam kenn du ko xam kenn du ko gis kenn du ci jariñ waye yermane motax bimu ci noppé mo waye ñu ko fi waye digënté serigne touba xasside yi leer na nañ noni la démé ginnaw lool kon xana dañ lay bayyi nga lancer ben message rek ci bis bi ak soññe bi rek wa lool de delu ci ñun lu khasida manam soññe bi ak message bi daal euh ñu xam li ñu yalla jox moy lan am na borom xam-xam bu baax te kon fi ci ngeej ñu koy waxee Usaaxo daana wax ne am dara ci xamoo ko ñàkk ko ci xam ko sax moko gën ndax boko amul ci xam ko dana la jaral wuti ko fu mu mën a nekk boo amee ko am te boko ko do ko ñak ko fonk kon nak li nu am te nga xam am gi da jitu xam gi nañ fexé xam ko nak moy khasside yi ak cër biñ ci yalla dox ñu téye ko ci li taxa a ci sëriñ bi ci sëriñ moy khasside yi khasside yi ñooy sëriñ bi secret du secret bu ñuy wax ak ki xam nga lu mu doon ñett ñi képp ko xam ñett ñi yego ci sa bop bo yaakaare ne sëriñ bi sa wërsegal ci loxom da ngay nax sa bop sëriñ bi mom képp ko xam sa yar matu ko say teggin matewu ko say war say war ma matewu ko seetil feneen sa wërsëg nekkul ci loxol sëñ Tuubaa kon message bi may joxe mooy lu nu am ci ab yar nañ ko génne lu nu am ci ay teggin nañ ko génne lu ñu am ci war ma nañ ko génne ab yar nag du nekkul ne bu ma tasee sëriñ Mouhamed mais mu wan ma ab yar ak teggin ma won ko ab yar ki teggin waaye su ma taseeg moom mu jalgati nag dama koy won ne ko dooma gënoo réew kon ana yar bi lu muy jëriñati Sëñ Abdu Lahat nee na ku ñu yar bañ lay yar ku yaru taxuloon ñu yar la dañ laa yar ngir boo doxee ba gis ku yaradiku nga génn yar biñ la yaroon jaar ca ba jàll mucc ci ak yaradikoom kon ñun lu xasida eh, dañoo war a firi xasida yi sëñ tubaa yi wane résultat bi ci ñun te sëñ tubaa wax na ne xasida yi ñoo ñoo gën a mën a sëriñ si li xasida yi mën a def ci ab jullit ci ab yar ak ab murit ab sëriñ lu mu baax baax lu kàttanam bëri bëri mun te yegg foofa kon bu ab sëriñ mënee tarbiyee ab murit ba mu yaru na nooy népp mën a nangu lool di jéggale xasida yi war naa produire ñoo xam ne ñoo leen war a gën a nooy gën leen yaru gën leen a mokk kon bis boobee ñu daje ab yar war na faa feeñ bu mat sëkk loolu ci suñu biir la waaye ay teggin da caa baax ndax teggi ni mooy ñi jaxasoog ñun ndax nit dana woyof mbubu lool ñëw ci bis ba nga xeeb ko ci woyofaay boobee ci fekk egg na ci boromam foo xam ne saa bu yëkkati ab tànk ñu taal kanu ci aras ngir màggal ko kooku nag soo ko wormaalul mën naa yàqu lu bari soo ko jox soo joxul ay teggin mën naa yàqu lu bari eh, ñooñu dañ leen a war a dañoo war a jëflante ñoom ci ay teggin ca teggin yi nag doo ko settee koo gis rek jox ko ko bu ko defee boo taseeg waaja am ja soo taseeg keneen nit moom mu jële ca waaye war ma ji nag njabootu sëñ Tuubaa gee ko moom ndax sëñ Tuubaa kat du juum euh, bi muy tànn dafa am ñu fi bàyyi ci ay jullit lañu te baax nañu lool ndax ku bokk ci xeetu yoonu sallallahu alayhi baax na ci teewul sëriñ bi bi muy tànn fi leen leen bàyyi doon ñu ay murit am ñu taw tawfeex doon murit bu la tànnee def la murit nag xamal na sëriñ bi beral na la loxo waaye bi mu tànnee murit ba noppi da cay tànnaat ñeneen def leen ak ak njaboot ñii di ay doomam ñii di ay sëtam bokk ñu ñun ndax ñun li dal suñu xel ñu di ko tiitaroo mooy nangu gi gi sëñ tubaa nangu ñuy ba buñ nee murit ñu sañ a gestu buñ doon seddale ñu tàllal suñu loxo waaye na ñi sëñ tubaa tànn def leen ay doomam def leen ay sëtam nga xam ne boo nee diw mi diway baayam sëñ tubaay baayam diw mi nangam ñooñu nañ leen bàyyi xel te warmaal leen ngir jëmi sëñ message boobu daal lay jox murid yëpp ñu gën a yaru te yar bi ñu di ko séddale ñëpp gën a am ay teggin te teggin ñu di ko joxante ci suñu biir te gën a am warma warma ñu dencal ko njabootu sëñ ay waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf Baye Alone ñu ngi santaat bu baax a baax ci kàddu yi am na solo lool ñuy ñaan sëriñ bi mu defal ñu dégg ak topp. kon bàyyi dañ lay jox nga tagato rek su ko defee ñu mëna yëkëti yëkkati bi inshallah allah. nga xanaa nag di leen sant bu baax euh, ci ité ji ak pasteur bi ngeen def ndax fi sarina waye téw teewul da ngeen jaayante ñëw bu fi ngir liggéey bu mag bi euh, lool nak du doon kéemaan Madiyana TV suñuy taxaw ité Sëñ Tuubaa rawatina lu jëm ci xaside yi rawatina loo xam ne njabootug sëriñ Chouaïbou bi ñoo koy taxawu tey mel ni dañ ne def nañ di leen war waaye des nañ ci gërëm ndax bari na lu war nit mu xam ko ba noppi sëgg mu jàll kon ñu ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen ñaanal euh, liggéey bi jig leen ba su ngeen ci bàyyi rek na sëriñ bi waxoon ci liggéeyu jumaa ji ku ci feeñ dootoo nëbbu te ku ci nëbbu dootoo feeñ gannaaw feñ ngeen ci liggey bi yalla na ngeen fi joge feñ ba faw euh, sen lepp du yokku ngeen dem ba bok ci organe yi gëna a ci yoonu murid te sen dara bañu ñu señ sëñ loolu ñu ngi leen koy ñaanal ba baax di ñaanal murid yépp nak bis bi ñu jëm ñu yegg ci ak jamm te ñi dem ñëpp dem ci jamm ñi nekk fa ci jamm ko bayiko fa ci jamm kenn ku ne wat fa nga bayiko ci jamm ci yóbbaale gërëmal sëñ Tuubaa waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa Malika siyaar si woon suñu bàyyi Alioune Diop nekk kenn ci ak ahlu xasida comme niñ ko waxee ci njëlbeen gi rek moom lañ siyaar si woon mu ñuy àndil ay leeral ci jëmmi bis bi ak li ko sabab ak yooyu kon mbokk yi xam naa dañ leen di jox di daje ba beneen yoon incha allah waaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin